je veux juste terminer par là nit ku nekk dafa am ak yelleefam am na de grands hommes politique ils ont fait la grève de la faim mhm. c'est une forme de lutte mais bi mel bi may wax mooy maanaam bu fekkee par exemple nit dañ ko téye c'est pas parce que dañ ko téye que amatul àq ak yelleef amul fenn dëkk boo gis Sénégal fii ay loi ñoo ko teg nee naa la dañu ñun ñoo jël convention contre la torture de Mhm. la torture elle n'est pas seulement physique hein mhm. et eh bien psychologique mhm. elle est multiforme et complexe et donc am na yu bëri yoo xamante ne nit su ko subiree mun na ñëw tey par exemple mu bind acquis de droit maintenant fan lay jaar nag loolu mooy wax ji moom laa doon wax sànq ni am na loo xam ne il faut ñu populariser ko c'est-à-dire que savoir boobu xam-xam boobu c'est-à-dire que comme Pape ni mu koy defee comme man ni ma koy defee comme yeneen ni mu koy defee il faut que nit ñi aussi ñu leen ni donc xamal seen i ak yelleef c'est pas parce que dugg nga prison rek dañoo bar a bafouer say droits. Mm-hmm. Mm-hmm. maintenant comment gérer nos prisons c'est là où maintenant la question donc voilà est-ce que administration pénitentiaire am na les moyens nécessaires est-ce que sunu prison yi n'est-ce pas am nañu capacité pour mun a jël maintenant loolu c'est des questions. je l'ai dit bon il y a un programme dans ça le président de la République l'a dit les mm. assises de la justice l'ont dit ce sera traduit en acte certainement mais li may wax mooy en vérité soo bëggee xam ndax dëkk mi ngi évoluer mi ngi jëm ca kanam mm-hmm. xoolal naka lay traiter ces détenus loolu c'est un principe booy lire dans les livres et dans les ouvrages mm-hmm. tant que jëloo de façon civilisée et de façon humanitaire nga xam te ne ñii kat donc voilà comme ni mu ko waxee am na solo mais li ngay wax sànq noonu même la pers la notion de personnalité du mhm. détenu mhm. en fait c'est une question variable et c'est interprétation mhm. ama yow mën nga am nit koo xamante ni tey personnalité la woon aussi mais boo ñëwee boole ko gars yi gars yi nga xamante ne dañ ko mere woon aussi mën nañ ko sàqal pexe loolu am na solo par contre yenn commodité yi ñuy defal ñenn ñi traitement différencié boobu warul am par rapport ak les autres loolu la ñuy tuddee équité du sax égalité équité traitement équitable tey par exemple boo ñëwee la chaleur par exemple loolu xam nañ par exemple les maladies et autres et puis les mêmes soins le détenu ordinaire ak un détenu spécial moom la war a am parce que le droit à la santé c'est un droit fondamental mm. yooyu yëpp suñu constitution la nekk maintenant ñi ko war a jëmmal mooy les avocats merci xam nga am na loo xamante ne. man on voit pas les avocats on les voit xam nga du sama mënu ma ci sori parce que c'est mm-hmm. une profession avocat yi ñoom donc mun nañu sax waxal seen bopp. Mm-hmm. mais dama ni la man Sénégal. Mm-hmm. man musuma gis un recours d'un avocat boo xamante ne day dénoncer une cellule infecte. oui malheureusement te man musuma gis soxna Mati li mu wax pourtant y a eu n'est-ce pas des techniques de correction yoo xamante ne on peut faire des référés. Mm-hmm. depuis 2017 janvier 2017 on a le référé administratif et ce sont des mesures administratives mm-hmm. attaquables devant le juge au niveau de la cour suprême et sous heures tu peux avoir une décision de justice mosuma ko gis su boobaa nag donc efficacité bi feneen la nekk mm-hmm. nee naa leen quand on ne revendique pas ses droits on les dit Et entre le fer et le fort, faible, comme on dit, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la mhm. loi euh, na solo xam naa ki talaata ji ñëw itam dañuy dem ci yeneen i euh, euh, prison. mais am naa benn question balaa ngay jàll de. Ah, si ah, c'est possible ah na question bi mooy <laughs> ci vacances judiciaires lay wax. waaw professeur man je peux pas comprendre mois de septembre ñeen la justice bi dafa dem vacances. booy ñëw kaso bi muy gën a yokk ay nit. am yoo xam ne ñoo am dossier jàppaloon nañ la jàppaloon la procès ñu la par exemple le 15 septembre. nga dem ñu la non juge bi dafa dem vacances dellu. Mm. ñu war la at septembre ñu poussaat la ba octobre ba novembre ñu atte la est-ce que mënuñu ko def comme yeneen administration yi maanaam juge di jël congé normal ci année bi mu ñàkk am benn mois boo xam ne la lii juge yi dañoo dem vacances vacances judiciaires. am na ñeneen ñu fay rek mais d'habitude stagiaires yi ñoo fay ñoo leen. mais mais attention déglu je pense que euh, boo liree Michel Tropper. Mhm. Euh, Tropper c'est l'un des plus grands constitutionnalistes. après bi mu paree France dafa dem Boston enseigner bon dafay wax comment décident les juges livre mais les magistrats aussi il faut ñu jaajëfal leen parce que juges yi dañuy fanaan tribunal di àtte. Mm-hmm. kooku boo waree bu jël vacances donc je pense que ay vacances am warul bokk ak les vacances ordinaires. attention loolu am na solo non xaaral xaaral xaaral xaaral li may wax am na solo aussi. parce que il faut comprendre que nit pour mu mën a àtte il faut mettre ci yenn conditions yi aussi. Mm-hmm. parce que juger aussi dafa diis. Mhm. parce que nit ki aussi bu nokkul nest pas dans certaines causes même ñun tey ñun on en vacances ñun les mhm. a <laughs> sa xel bi il faut nga mën a reposer mhm. donc le repos dafa am solo côté boobu noonu. li tax ñu def vacances judiciaires c'est que magistrats yi mën a noppalu mën a dallu. maintenant li ngay poser comme question loolu tout système da koy jéem a régler. maintenant xam sunu problème lan la mooy nous on a un déficit de magistrats. et loolu wax nañ ko yàgg nañ ko. pourtant mhm. ma ñëw rek euh, ma ñëw. cest à que il nous faut recruter des magistrats yoo xamante ne tey jii nii tey par exemple dinañu mën a ñëw day en appoint tey il nous faut parce que yow da gis les dans les recrutements da ñëw ñu ne vingt cinq la ñuy jël trente cinq la ñuy jël. Mhm. alors que le ratio qui est mais est au niveau des standards internationaux mais ñun tey jii nii atteindre guñu ko. loolu problème la cest à que il faudrait pour que longue détention yi aussi ñu mën ko donc eh, voilà ñu mën a lutter contre mais mieux encore cest dire permettre la célérité de la justice et la qualité de la justice mhm. et aspect yooyu noonu daf ci bokk parce qu'en réalité Fabrice Ourkobi mi ngi koy wax dans un de ses articles suy wax les problèmes et les de la justice en Afrique daf ciy boole problème yooyu problème financier problème donc récemment réglé woon nañ ko et cetera les juges souffrent que xam nga ni man j'ai parlé avec des magistrats à moment donné da doon gis juge d'instruction dix mille francs de crédit sax daanu ko woon am mm-hmm. et c'était compliqué pour mu mën a def son enquête mm-hmm. et cetera et yàggul trop le président jël benn décret mun leen a jox yenn yi. beneen bi si topp mooy dangay gis un magistrat boo xamante ni le dossiers yi ñu koy jox tey par exemple moom rek mënu ko traiter. day obligé yenn yi xam nga soit mu mun a teg xaar wala dara parce que juger dafa diis. danaa leen Kéba Mbaye daf ne rendre la justice est un acte de piété. Mhm. mu ne sax sooy juger sax tu peux subir la réprimande de justiciables ou bien la foudre des gouvernants. Mhm. koo àtte ku soxlawul donc bu boobaa mu ni mais il faut se situer au-dessus de la mêlée mhm. mais loolu il faut nga am xam-xam bi mais aussi il faut nga am aussi donc noppalu bi et cetera c'est pas pour les défendre beneen bi si topp nag boobu laay ñëw maanaam les questions judiciaires aussi en réalité dafa am aussi dañuy obéir à des procédures mhm. la justice a son temps loolu aussi dañ koy bàyyi xel Sénégal ñun dañu bëgg lu baax trop loolu am na beneen bi si topp euh. loolu je suis d'accord tout le monde man loolu laa mën a wax mhm. man en tout cas je suis parti en prison voir mon frère et moi j'étais pas d'accord avec les conditions de détention je mhm. et ces conditions de détention là sénégalais yëpp ñoo koy dénoncer mhm. c'est-à-dire que tey on doit aller vers des prisons rénovées mhm. mais aussi vers des prisons yoo xamante ni ça répondre au stand ça internationaux yoo xamante ne day am les qualités et les commodités mm -hmm. nécessaires pour que ñi nga xamante ni ce sont des détenus ñu bala nga koy xam nga nekk ci détention bi ma nekkee Grenoble Frédéric Sudre dafa ñëwoon di def conférence mu jékki-jékki ba ci yàgg di wax sur la garde à vue mu ne ñun les professeurs de droit bi ñuy def la euh, la présence de l' ñun dañu ñëw quoi mu ne les un des représentant du ministère euh, ni leen waa léegi mais nu ñun nan la ñuy def ba am ay aveux les de droit ñu ni ko non non ñun seetuñu nu ngeen di def ba ay ñun li ñu wax mooy nan ngeen di def ba respecter les droits de libertés fondamentaux mu ne lundi la woon àjjuma kooku ñu mettre ko en garde moom mi doon wax loolu pour dire tout simplement que donc justice. Mhm. donc daf fi nekkal ñëpp et puis jombul kenn. d'accord merci beaucoup euh, professeur merci beaucoup yéen itam euh, ci bi bu am solo bi nga xam ne daal ngeen koy andi euh, Pape Moussa Sow dañuy daal di dem rek ci li nga xam ne Sénégal yëpp moom la ñuy xaar muy euh, l'installation du nouveau pôle judiciaire financier bi nga xam ne adaat nañu koy def le 17 septembre bi muy 27 magistrats yu spécialisé wu ci xeex lu jëm ci wàllum corruption crime économique également waaye tamit gis nañu ne daal dafa mel ne day càmbar. jëm ci plainte euh, pour euh, corruption waaye itam détournement de deniers publics euh, blanchiment d'argent wala financement du terrorisme ñu gis nag dafa mel ni mbir mi daal di lay tàmbali machine judiciaire bi daal di ubbi ñi ñu ci jotagum teg loxo ku ci mel ne Lat mi ñu toppee détournement de deniers publics ak blanchiment d'argent ma daal di lay bàyyi ak professeur ma daal leen bàyyi sax laa ak professeur jërëjëf soxna Ngoné xam nga pôle judiciaire financier bi